xel moom allah kulli aal doomu aadama boo gis am na xel xel mi ndax xam nga ko wala xamuloo ko doomu aadama boo gis am na xel waaye nag ci kaw loolu yëpp foog naa ne Ibrahima li Gamcel def dafa doon loo xam ne lii sampul la dafa doon loo xam ne lii ñëpp war nañ koo roy kon dafa mel ni tey oote bi ñu tax a toog fii tey mooy oo waa Gambia góor jigéen mag ak ndaw yaa xam foo jóge ak koo doon ku fi juddoo ak ku fi juddoo wut ñu oo leen ci oote boo xam ne bii dafa yomb te nag di ci am tuyaabo oote boo xam ne bii da ngay tëdd sa kaw ni mu ko waxee rek muy Western Union ki nga koy jox nee na bëgg naa ko nee na three dalasi bi soxla naa ko nee na la five dalasi bi soxla naa ko te five dalasi boobu doon na lu tuuti loo xam ne lii mun nga ko sax rotal ci mbedd mi tey mu ne la yónnee ma ko ci fan one nine zero Gamcel def ak moom ne la jëlal one nine zero nga jël oote one nine zero dina am loo xam ne dina la uyu waaye lam lay uyu mooy agsi nga sa xaalis dugg Gamcel jël five dalasi yooyu ak three dalasi yooyu dajale ko ñëw bi góofi mu jox ko góofi ndax lan hmm. ndax góofi dafa am lu ñu soxla ni ñu ko waxee léegi ay moto yoo xam ne ñooy dimbali silmaxa yi hmm. ay computer yoo xam ne moom la ñu war a jàngee typewriter yi hmm. yooyu yëpp dañ ko soxla te tey jii xaalis lañ ko soxlaa te ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñooy silmaxa ya fa nekk war nañoo am lu ñuy teg ci seen loxo comme ni mu ko waxee ñu di ci jëkk euh, sukkandiku di ci jënd seen xarit tabaski di ci jënd seen yére ak yooyu te tey jii suñu jëlee five dalasi yooyu ak three dalasi yooyu boole ko dina doon loo xam ne ni dafay dem ci góor gi te loolu yëpp ndimbali Gamcel la kon dafa mel ni ndimbal loolu ndimbali réew mi la <laughs> ndimbal loolu dañoo wax ni suñu buur bu baax bi suñu président bu baax bi di alxaaji Yahya Jammeh moo def ndimbal googu ndax moo fi indi gamsel mhm, la Yahya Jammeh fi indi gamsel mhm. kon su fi indee lu toll ni gamsel teg ko fi mhm. gamsel mun a am xel ne man kat suma njiit indi na ma fii ci réew mi teg ma fi ne ma liggéeyal dimbali doomu aadama yi ndax moom Yahya Jammeh dimbali doomu aadama yi moo ko fi tax a toog bër bu set la nekk mu teg fi nag compagnie boo xam ne dafay dimbali doomu aadama yi kon dafa mel ni ndimbal mi Yahya Jammeh ko def kon dafa mel ni tey góofi mun ngeen jàpp ne Yahya Jammeh di président réew mi moo leen defal ni malki ndax kat moom moom Gamcel moo fi indi Gamcel kon nag jaaraama Gamcel mi nga xam ne xam nañu li buuru réew mi dëkk bugga xam nañ ne président bi lu baax rek la bëgga ba tax ñu jël sukkandiku ci loolu di dimbali ñii di góofi waaye ba tey ah, balaa maa jàll ci Ibrahima ah, ba tey ci Gamcel rek lañuy ñuy waxtaanee ak góofi waaye Gamcel nag dafa am yónni boo xam ne dañ ma ko yónni woon mm-hmm. yónni ma ko ci président Jammeh yónni ma ko ci ki nga xam ne moo toog ci réew mi ma ko ci ki nga xam ne moom la góor bëgg a mag ndaw ñëpp moom lañ bëgg yi ma ci ki nga xam ne kii moo defar réew mi ba ñëpp mu ngi cee jaar yónni ma ci ki nga xam ne kii moo tax ñëpp ñeme yónni ma ci ki nga xam ne kii moo tax ñëpp taxaw di liggéey kooku mooy kan alxaaji Yahya Étidie Jammeh Jammeh Moussa Gamsel nee na ñu ngi lay gërëm di la sant nee na ñu ngi lay gërëm ci sa toogaay nee na ñu ngi lay ñaanal it ci sa toogaay nee nañ ñu ngi lay gërëm gërëm boo xam ne amut at te di la ñaanal yàlla buur bu baax bi fi nga bëgg a yal yàlla na nga fa àgg gamse la mu yónni woon loolu waaye yow ku nelaw mu ngi lay ñaanal ku tëdd mu lay ñaanal ku toog mu lay ñaanal jàmmi Moussa ndax yow sa toogaay bi fii macha allah toogaay bu rafet la sa toogaay bi fii toogaay la boo xam ne bii ñëpp nangu nañ ci muy fii nag ak feneen loolu la ma gamsel yónni woon waaye ñu xuus ci waxtaan bi ma bàyyi Ibrahima mu laalaa tuuti ci soose ah, a baraka baake yaay ministére e la ɗo ko ñiñaata mm. ah, hani sabe baɗigol kala hakkilo si siyo men to jambi eh, gamselle sembeti ya pour nga si jang mm -hmm. andu ni eh, men dum nyobulu wala nyinti pour mol si ga eh, govi koy mm -hmm. mbe programme men na pour ga jimintel makoy banko kan mm -hmm. eh, nse keno sono ya kono jimintel la karamo govi ba be jele mm -hmm. ila meche ni eh, fana govi bulo be jele mhm. kuwo ku me alon ko abe dende jimintel la kuola mm -hmm. ila nyantol ni ila lungolum kolu mhm. abe govi le bulo mm -hmm. kabring banjul mafawla jankata fo base mafawla ibe govile bulu mm andu kanye sifa tamandi amon sonoya mm-hmm. gaya fo jande ko wato dul ka makorol soto le me kake project golti mm -hmm. bar wato dul project gol kanal andu ika inyatilin fenkilin la comme mm-hmm. sante nga project gol soto me an ko ay e, inyatilin e dindi wala karam wala banko be kan bar ni e nyatilin dindi la karam fanana. tumando fendol katara jil man taraje o eh, kudol bijel ul buga tara kono waran kebal bije mena ko nyanta meteo karandila mhm. so dol bije fra nyanta kala mitingu ka nin ku ko wolo mhm. so hanen cha govi bulo be ko tole mhm. albe ma ko ndola nyaadile wolo nyinte ale eh, kolke 190 nimme kolke 190 e eh, be darasi lulle tala la ko doto nimme text ki 190 eh, fana ansari machine ba tala le na ta doron dalasi saba abe wolo tala ni comme euh, deni siya fo jane tuman do ñing kodo doyata bar ni momo ye kilinke fulake mm. na meta ka siyale andu me mol dan la fanan eh ni me yalon ko im o be doyata fe mm-hmm. nga nomba soto mi ko 9303030 iso kilinole ini ye kacha nga ben nga ku ko tawul fengende andu be mol dan la fanan nalma gamsel la no soto ali gamsel la no soto ñini mm-hmm. isaji alsim ma ko no ñing ku sivaru mbaltendula mbalje ok kon kaddu gi Mm. jërëjëf ñu Denis mu tëj waxtaan wi ndax fi ñu ngi jàkku ci waxtaan wi ah, léegi tey time bi jot. Mm. kon Denis. yes oh thank you very much. Mm. yeah and uh, to our listeners. yeah most of the oh, you realize that uh, Govi as a visually impaired organization. Our coverage is nationwide mm-hmm. and our beneficiaries range all the way from mm-hmm. banju up to Basse. Mm-hmm. But uh, you realize that uh, in one sector, for example, we can say education, we are trying to do it, but we, we don't have enough that we can reach all of them. Okay. Yeah. Wow. When, Euh, ba tey kon Gaye nga tëj ci lu gàtt ndax waxtu wi jot na. lu ma tëj ci lu gàtt mooy ne. Mm-hmm. Euh, comme lu ko Ibrahima waxee. Mm-hmm. ku képp ku ñun Gamcel mooy suñu Western Union. Mm-hmm. ku ñu bugg a am. na la jaral nga ut Gamcel SIM card loolu rek nga ñëw mun a jotee. képp ku def loolu. defloo ko yaa ngi ko yaa ngi ñoo dimbale dimbale sa bopp dimbale sa sa sa mag yee sa raka yee ak sa andu jaama yëpp. parce que ñun ñaanuñ yàlla lii continuer. soo si ko loolu hani say mbe ya minister kontona mbe gamsal na baadiŋol fanaŋ baal kontoŋ na ando ŋa jigile ko ali ñi silamanda si ña kiliŋ na niŋ ala sonta gamsel la maakoro koto a si keno ŋa munulu jankoteŋ ke meŋ maŋ seneya ŋa ye seneyandi bari hani saa alla maakoyiro mbe sulara la pour nsi jimintel maakoy Yeah, thank you for listening to us. Mm -hmm. Just call 9303030. Mm mm-hmm. We shall able to receive you. kon boog waxtaan waa ngoog jërë ngeen jëf ñun la Gamcel ñoo fi toogoon ak góob bi ci ndimbal gi nga xam ne ñu ngi leen koy defal kool leen 190 ñu jël seen 5 dalasi jox ko góob bi wala ngeen text 190 ñu jël seen 3 dalasi jox ko góob bi dimbali leen ci li nga xam ne ñoo leen ko wala dimbali ci réew mi kon nag waxtaan waa ngoog door leen ko léegi bu leen toog taxaw leen taxaw leen ci lii ndax mu sax taxaw leen ci lii ndax ñi ngeen di dimbali yàlla dina leen ko delloo te dina leen ko fay 5 dalasi rek la call bi tri dalasi la texte bi ngeen kool ko lañ leen suñ leen uyoo rek ngeen xam ne dugg na ci biir ndimbal gi di dem ci ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki silmax yi soxla nañ ko kon mbokk jërë ngeen jëf mbokki Gambie waxtaan waa ngoog lii lañ leen amaloon tey ci Gamcel ak Govee jërë ngeen jëf National GSM provider Gamcel introduces Penchami. Experience SMS chatting like you've never experienced before. Create your own chat room with whichever name you choose and invite your friends to join. Simple to use and at an unbeatable price. Send a message to 999.